bismillahi arrahmani irrahim alhamdulillah wassalaatu wassalaamu ala ashrafi alxalq sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashaabihi ajmain wa man ihtada bi hadihim ila yawmi din monsieur le gouverneur yow ak sa collaborateur yi fi teew ñu ngi leen di nuyu ci turu xalif général di Tijaan Cheikh Ahmed Tijaan waxtaanee lu jëm ci gàmmu Tiwaawan ak lu ko yéwénal muy le préfet bu Tiwaawan muy maire Tiwaawan ñoom ñëpp ñu ngi leen di jotal nuyoo xalifa bi ak nuyoo njabootu Cheikh El Hadj Malick yëpp di nuyu mboolem chef de service yi fi teew moo xam yu régional lañu walla yu département bi lañu itam président COSCAS ak mbooleem ñi mu bokkal organisation bi di leen jégalu ci retard bi ma am ndax loo foo xam ne yaa fa war a jëkk ñëpp tàttagal ñii ñëw soo demee ba ñu naan la quatre points mooy ci des wala ñeenti points mooy ci des vraiment doo am lay walla boog xam naa liñ naan lu lay naqari naqari rek nga am lay ñu xaw a yéex a ñëw tànk yi baaxul dox bi yàbbuñu ko lu nekk yàlla daf koy able bu jotee mu nangu ko ndax ba ñu koy man dëgg daaw nu nekk kenn ñoo ko daan jiite di ko def ca suñu pénc ba gouvernement ñëw boobu gouvernement amagul fii ci Sénégal ñu amee organisation bi di ko def ci suñu pénc suñu kilifa gu baax ga toog ak itteem bu rëy ba mu amoon mu di sëriñ kër Sy am itte lool ci gàmm bu jotee organisation yëpp moo koy présider kenn ku ne ñu defal ko compte rendu li nga xam ni moom lañ le méngale la nga cee def ak la nga ca deful su amee benn fay rekk yow at mooma dootoo fekk benn réunion ndax réunion boo ñëw boo bëggee wax mu ni yow amoo loo wax ndax yow bi ñuy defee réunion manqué nga nangam manqué nga nangam manqué nga nangam ba gouvernement ñëw nangu organisation boobu ci loxoom ak loxo njabootam di ko ko defal na mu gën a rafete eh, gouvernement yi fi jaar yëpp tabaarkallah mu ci nekk bu gàmmu masaan jot daa bàyyi sa itte àndandoog ñun xool eh, fi ñu xool rekk muy organisation bu jàpp ba bi président Macky Sall ñëwee mu gën a baax ngeen nekkal ko fii di ko def defin gu gën a rafet gën a yaatu gën a méthodique bu jëkk daan ñu xëy toog dix heures ba huit heures du yi metti lool waaye doo ñeme ni ngi wax dara waaye daa xam ne lu metti la léegi bu ñu xëyee boo xefee balaa deux heures ñun la ah réunion bi kat quatre mooy ci des walla ñetti points mooy ci des nga daw ñëw teew loolu nag eh, méthode yu am solo la ngeen di ko diriger réunion yi mu xam CDD la mu xam CRD la te bu ñu demee ba ca intérieur itam daa fekk mu gën gaaw ndax ministre bi dafa nekk ku am waaw su ko defee leen rek la ñuy leen di def comme observation moo di muy am suivi ndax lu mu mën a doon bu amul suivi rek du dox mooy li ngeen tawat ci duwaañ beeg téye nit ñi ba mu am quinze jours waaw lu jëm ci woon Tiwaawoon gàmmu Tiwaawoon quinze jours nga nangu ko bu mu am quinze jours nga joxe ko <laughs> fa nga koy denc est-ce que loxo yi dana ñoŋ est-ce que du yàqu est-ce que luy luy yàqoo nga ci yooyu yëpp ñoom seetuñu ko parce que yaa di am na ay agent yoo xam ne seen yoon lañuy def li kilifa yi wax ak ndigal ya ñuy joxe yëpp du am suivi dañuy def rek lu leen neex dem seen yoon te doo xam ci kan ngay adressé wu loolu toujours dañ koy subir loolu nag vraiment war nañu seet nu ñuy wax agent yooyu ñu moytu lu demee noonu ndox sa kilifa liggéey ba ca kaw mu ñëw ci yow yàqoo ci yow te yow yow mu yàqoo ci yow kenn mënalu la dara dafay xaw a metti te ku nekk xam ne ni ñi jógee Gambie ñi jógee Mauritanie ñi jóge Mali euh, seen ba Guinée Bissau seen ñëw dafay metti ci ñoom Euh, ñëw bi metti ba noppi nga ñëwati ba yegg si Sénégal ñu mettital la lu raw la nga daj ci sa frontière dëkk yi nga jóge te li ëpp ay jigéen lañuy doon jigéen dafa laaj ñu suturaal ko jigéen dafay laal bu soxlaa boppam am fu mu suturloo yooyu yëpp yow doo ko xool ngay def rek je m'en kenn du la mën a dara nga dem sa yoon ñu di la wër nga dem boloti walla nga dem naani attaaye loolu manque de respect la ci sa réew mais manque de respect la réew yi nga xam ni ñoo wër sa réew ñuy ñaan nag agent yooyu nga xam ni dañuy liggéey liggéey ba liggéey bi gën dem bay rafet ñu yàq ko ci lu tuuti waaw fitnaal ñii ñëw ak seen coono waroon ñëw noppalu jotatuñu seeni yëf te du am solo bu doon lu am solo ñun wax nañ leen ni képp koo xam ni danga yor oto yàpp ca yaa ko responsable demal nga wax ko duwaañ bi fi ngeen d'accord yéen xam du ngeen dajeeg benn camionnette walla camion ñu def ca marchandise mu awul yoon ñun ne sëriñ bee ko santaane loolu benn sëriñ sant ñemewu ko su ko defee nag kon ñuy ñaan rek ñu nga xam ni ñooy agent yi nekk ci yoon wi ñu yombal nit ñi bésu gàmmu yombale leen tuuti ñu ñëw ndax fa ñuy jóge day sori te yëpp ci suñu bopp lañ koy tekki yi teg si waaw dañuy ñëw taxawula la ci circonstance yoo xam ni yow doo mën a bàyyi la nga doon def pour satisfaire leen te doo ko mën a bañ a def su ko defee day bi nekk benn tànk-tànk bu xam ne dana di am léeg-léeg ci agent yi nga xam ne ñoo nekk ci yoon wi ñu xam ne lii war ñëpp ci gàmm moo leen war bésu yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam jullit bu ne am nga cëru def ci lañ ca war a def waaye nekk ba bésu gàmmu nga ni naa wane sama existence ak sama doole teraloo yonent bi te lépp lu nit am rek ngir yàlla ak moom la parce que li Seydil Hadji Malick di wax alhamdulillahi dil ijaadi wal qidami middina bi wujudil badri dil qadimi nee na bala ngaa sant yàlla danga koy sant d'abord ci amal gim la amal parce que diw am na alal diw am na xaalis diw am na mbubb mu rafet diw am na kër gu yaatu boo amul woon doo ko am mu ni kon li nga war a jëkk-jëkk sant yàlla ci ni'matul ijaad mu ni dil ijaadi wal qidami nga sant ko ci loolu Maodo nee nga sant yàlla ci existence bi nga xam ni am nga ko ngir yàlla ak barke yonent bi waaw bu du woon barke yonent bi doo nekk douanier parce que doo am doo nekk gendarme parce que doo am waaye ci barkeem ak leeram ci nga ame yow diw am na taar boo amul woon doo am taar mu kon bala nga sant yàlla ci lim ci benn xéewal na ko sant ci xéewalu amal gim la amal ba noppi ko defee nag nga bàyyi loolu xel yow nit ki dëgg la am na ñoo xam ni xëy na du ñu sàmmante ak yoon te sàmmante yoon nag dafa war te lu ñu ci man ñi ngi koy def pour wax leen ko pour que ñuy sàmmanteeg yoon di moytu loo xam ne dañ ko tere ci réew nga di ko def ku ko ci def buñ la yaree kenn tooñ la yaa tooñ sa bopp waaye am na ci yoo xam nag ñu koy def ma tey la rek dem pour sonal sa mbokku doom aadama ci bis boo xam ne ku nekk da nga war a am noflaay ah, nga gis waaw nit ñi sonn organiser seetal ba ñu commencé ba léegi li fa am ci ay réunion ñu ngi ko commencé ci Gossas réunion bureau réunion assemblée générale mbooloo xaw ma lan lan lan ba ñëw ci CDD préfet jiite ko ci Tivaouane ñu jóge fa ñëw CRD gouverneur jiite ko ñu nga jëm ci intérieur ministre de l'intérieur moo koy jiite coono yooyu yëpp ñu def ko ngir toog gàmmu yéwén yow nga bëgg ko yàq ci benn minute yow nga bëgg ko yàq ci benn minute dem sa yoon loolu jaaduwul te ñun xam nañ ci dara te ñun xam nañ ci dara dañ ko dañ koy def noo tey noo tey loolu nag baaxul ñu ngi ñaan rek agent yooyu loolu di seen jikko ñu bañ koo defati di dimbali nit ñi ndax ci gàmm gi lañu bokk ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñuy màggal ku ñuy màggal rek yaa tax moo tax ñu di la màggal waaw ma Seydi Hadj Malick sosal ko ko ci Tiwaawan mu doon lu tuuti lu tuuti ñun nii fekke nañu ci Tiwaawan bu Maodo fekkewuñ ko parce que euh, bi muy génn àdduna ñun ñëwaguñ ci àdduna waaye fekke nañ suñu baay génn moom doon sol mbubbam mu weex cer su taaliba topp ko mu wuti jumaa ja su demee ñu tegal ko benn kees walla benn gënn teg ca benn serviette bu weex indi miim ya Maodo bi tegal ko ñu taal ay làmpu patafor làmpu petrol ñu ñu daan wax làmpu patafoor <laughs> benn góor gu ñuy wax ndaraw ñang radiyallahu anhu mooy sukk ci kanamam di ko niital ak sondeel muy fiiri miim yëbi bu noppee ñaanu nit ñi mook Seydil Hadji Mansour ñoo ko daan bokk alxaaji abdul aziz di leen woyal euh, su noppee bàyyi seydi alxaaji Mansour mu def orientation bi euh, mu ñaanal nit ñi ñu tas gàmm gi bu ñu xëyee bu trois heures boo ñëwee Tiwaawan dangay ngay defe ni kenn mosu fee gàmm ndax doo fi gis kenn balaa tisbaar ñëpp dem nañu seen yoon loolu fekkee naa ko man ba tey loola tey di màgg di màgg tey ba ndeysaan xam ni boobu ñaari nag lañ daan rey wala ñett gën jàbari léegi defe naa ni yàlla xam luñ fay rey waaw lu boobu organisation di màgg barkeel na kay ah barkeel na ñëw di ko defe noonu di ko defe noonu ndeysaan ba dégg naa ñu ni moom Seydi El Hadj Malick mas nañu gàmmu Tiwaawan ci laabiram gi mu ni ah ñi sori daal may naa leen ñu gàmmu seeni dëkk waaw te bàyyi ma man ma gàmmu Tiwaawan tax nag am ñu ko dégg ñëpp toog seeni dëkk gàmmu jot mu ñëw ci jumaa ji gisul kenn lu dul njabootu boppum mu ne ah waaw man Malick may gàmmu sama gàmmu diwét te fii ci Sénégal ku fi am tariqa te mu wér te mu wér la wax waxul ni ku fi am tariqa maa la ko jox def ni ku fi am tariqa te mu wér maa la ko jox wala kala ko ku fi am lijaasa te ko jox wala kala ko jox maa ko ko jox kon bëgg naa su may gàmm fii ba góor saani ca jolof ndeysaan la waxoon ñu fekkee ko ndax mag mu amul lépp du génn dëgg di ko wax ci génn guddi cim at bu sañoon ku mu jaboote daa ko fekk loolu yàlla barkeel wooteem boobu waxuma góor sànni ca jolof waaye waa àdduna yëpp ngi ñëw di fekk ci léegi gàmmu Tiwaawan ngir yàlla ak ñaanam ak ñaanu njabootam Sëriñ Babacar si li mu daj ci gàmmu moom rekk ko ci daan daj màggaayam ak yépp dafay wàcc si ba ba tolloog ñun maa ngi fàttaliku mag ñi di ko wax ne ah waaw ñun de dañu lay laaj ndax bu ñuy ñëwee dañuy toog nga toog ñuy ñuy werante ñuy wax eh, ngay saxal ñuy weddi eh, mel na ku toog suñu moroom mbaa loolu du ñu gaañ mun hmm, déedéet bu ngeen ñëwee damay jóge ci sama cadre ñëw ci seen cadre bu ñu waxtaanee ba noppi ma dellu ci sama cadre ngeen dellu seen cadre loolu la ñu rassuré ba ñu xam ni kon li ñuy def li ñuy def jaadu na moom mu def kook ñun boobu moo daan présider ñoo yëpp yëpp yëpp booba temps <laughs> ni organisation gàmmu méttee woon doyoon na waar ndax lépp ñun la woon euh, ba tubaab yi dugal ci seen loxo di ko ko organiser ndànk-ndànk euh, après nag bi réew mi moomee boppam Eh, ñu gën koo jàppale waaw ku ñëw rek nga defe ni mu gën moroom waaye léegi nag wax dëgg yàlla eh, facilité yi ñu ci am ak eh, yomb yomb yeeg ni muy gaawee ak ndimbal yeeg ñu ngi koy sant yàlla di ko sante président de la république ci Macky Sall ak euh, gouvernement ak njabootam yi nga xam ni ñoom lañu ñu booleel ci biir Sénégal du wax ci biir région bi mais ci biir Sénégal ñoom ñëpp ñu gërëm leen sant leen gërëm ko ñaanal ko programme am yal na ko ko yàlla yeggaleel ba mu am ca la mu bëgg. bu ko defee ñu gërëm suñu premier ministre moom itam Mahammed Abdullah ak ministre de l'intérieur waaye plus particulièrement nag suñu gouverneur de la région taxawaayam rafet na coono bi wàññiku na eh, nit ñi kenn ku delloo na la sa place ba nga xam li nga ci war a def te du yàq ci li keneen war a def ñaari at yi ñetti at yi vraiment liggéey bi rafet na lool waaw loolu nag ñu di ko gërëm moo ñu mu àndal di wax rekk ngeen gën a góorgóorlu Tiwaawan dëkku diine la yàlla def na ko ko ba noppi ndax Seydi Hadj Malick mu fa tëdd ñu gën a góorlu kenn ku nekk rekk gën a am passif ci sa moroom du la gën a wér pas-pas boole comité d'organisation bi nga xam ni ki ko jiite moo di Pape Ousmane Samb ah ngeen collaborer nu mu gën a rafete rek jàppalente xam ni kenn ku nekk sa bopp ngay defal ndax bisu yonent bi la jullit bi ne am nga loo ci war a def ak loo ci war ñu ñaana leen yéen ñëpp ngeen am wér gu yaram ngeen am xel mu dal ba lu ngeen bëgg a def ci gàmm gi rek ngeen def ko ci xeetu organisation xeetu jàppale euh, ki nga xam ni moo ko sos mu di Seydina Alxaaji Malick Sy waaye itam jàppale ki nga xam ni moo fi nekk léegi di xalif général de Tijaan di Cheikh Ahmed Tijaan yi nga xam ni toujours bëtam ak xelam mi ngi ci ñun te mi ngi ñuy laaj toujours fi ngeen tollu li ngeen def lu ngeen war a def euh, toujours bëtama xelam mi ngi ci organisation gàmm gi ñu ju ko rendre compte euh, ba defee kon ñu ñaane leen yàlla yéen ñëpp ni ñu fi dajee ren yàlla nañ fi dajee déwén te yàlla na déwén dàq ren kenn ku ne problème boo am balaa ñoo fee dellu si déwén yàlla na fekk nga am solution ba gën ñu ngi koy ñaan di leen ko ñaanal yéen ñëpp ndax kenn ku nekk ci yéen mu ngi am pasteefu gàmm gi baax jàpp ni sa gàmm la yaa ko moom ba moo tax li ñu am ci réussite yëpp ñu di ko am kon ñu ngi leen di ñaan bu baax di ñaan gàmm gi yàlla na yegg jàmm te nu mu daan mel rekk yàlla na gën a rafet ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa ah, ak barke ñi nga xam ni ñoom lañu ñu booleel ba ñu mën a xew ci gàmm gi sëñ Mansour si radiyallahu anhu daan wax ni bu leen fàtte ki nga xam ni su dul woon moom doon xew bay xew <laughs> waaw doon xew bay xew kon ñu ñaan ci seen barke rek ñoom ñëpp yal na ñu dugal seen loxo ci organisation bi ba nu mu daan baaxee rekk mu gën a baax yenn moyens yi gën a yomb yal na yéene yi yàlla yeggale ko ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jotal nuyoo xalifa bi di leen jotal nuyoo ay rakam eh, sëñ Babacar Sy Mansour sëriñ Hadji Malick Abdoul Aziz ñoom ñëpp maa leen fi représenté waaw ah, jotal ay seeni cant ak seeni ñaan yàlla ah xaw nañoo yéex a ñëw tey nag <laughs> waaye rek yëre di la ngeen eh, baal nu ko eh, te it suñu xel dafa dal ci yéen rek xam ni même bu nu ñëwul it na mu daan mel rek lay mel wala nu ko ëpp boobu confiance am nañ ko ci yéen ndax kenn ku nekk xam nañu si yéene ci xadara Seyid El Hadji ak si yéene ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te muy na baax rek ko defee na rek la ñu amoon ci lu ñu doon mu jóge ci xadara Seyid El Hadji Malick jëm ci yéen yàlla nañ ko fettooge waat diwen te résultat bu daan am yàlla nañu am bu ko gën ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu